Heavyweight.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 boobu booru min wi jot na ñu doon këpp mbalit ma nag ca marché Castor ci noonu la ñu dajeek Y Silla ak S Camara di ñaari charlatan ñu laaj xale yi ne ba xam-xam ngeen ab sëriñ bu tudd El Hadji Diallo ci noonu la S Camara di beneen sëriñ bi dugg ci waxtaan wi mel ni ku àndul ak Y Silla fekk ñoom ñaar ñoo ànd S Camara moomu ne xale nañu laaj ba xam Y Silla day lakk su kursu pour mu mën leen interpréter lim leen di laaj ci la leen ne sax dafa mel ni sëriñ boobu Y si laa di laaj xam na ko bi ñaari xale yu jigéen ñi taxawee di wax ak ñoom te mbay waaj a ñibbi ci la ñaari charlatan yooyu ne leen nañu tàllal seeni loxo ngir ñu ñaanal leen ndax lu baax li ñu leen defal ma ne dañuy yodde foofa nag la benn xale bu jigéen bii di beeka ne ci la commencé perte connaissance xamatul fu mu nekk ne ci la ko benn buxaaba papa bii di Y Silla nekkoon na dem këram indil ko xaalis ak ay ordinateur portable coy yow mal xale bu jigéen bi nee bim ko ko waxee tegu ci benn baat ëskëy nee ci la demee këram bàyyi fa cousinam bii di abe bu xaaba yi téye ko fa bekaa nee na bi mu demee ba yegg këram ci la dajee ak papam daa di koy wax nag li xew ah ah ci la paa bi moom ak ñenn ci membre famille bi dem fekki ñaari buxaaba yooyu fa ñu nekk daa di leen jàpp yóbbu leen ci way takk der yi waaw góore waay gannaaw ba ñu leen taqalee nag ci wàllum détournement de mineur ak wàllum charlatanisme Greg Sylla moom di benn charlatan bi weddi na tuuma yi ba tëdd ci naaj bi nee moom sax daa musul xam luy charlatan ma succee dugg ma succee yëngatu moom daal li muy liggéey mooy jaay café Touba bis bi yëf xew moom Y Sylla Touba na dafa wàcc vers wi ci la dajeeg ñaari xale yu jigéen yi te kenn ki sax yaayam dafa yor ab gargot ba léegi si Sylla mooy wax de di benn charlatan bi xale yu jigéen yi accusé nee na dañoo daje xale yi di waxtaan ak ñoom nee ci noonu rek benn xale bu jigéen bi di beeka taal di jóg dem nee bi ñu toogee nag ba tuut mu dal di dellu si am ñu mu àndal nee ñu ñëw arrêté leen daa di leen commencé lap ñu déetawaay ñu arrêté taxi dugal leen ci yóbbu police noonu tamit la escamara di beneen charlatan bi xale yi accusé moom it waxee weddi tuuma yi ne moom xamul sax Y si la dañoo daje rek bali xew mujjee xew mbir mi nag mujj naa teeri ca loxo loxoy yoon xale yee wax dëgg wala charlatan yi ñuy ji ñoo wax dëgg yàlla rek a xam en tout cas ñu xool fu wànneen di mujjee ki gëtëm moo tax ma ne cangoro gi dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax waa ji nag moom ma ne li ko dal yéene naa ko ko laa wax waay déet waay ma ne sa waay dal lu carax la jàppee jigéen ñoxor njaay mu may la baat kut zanu dóor mbaa saaga waay ëpp na waay réewa réewa réew ba mar dee taali ma ne sa waay day changé jabar kon ni muy changé dal lu carax ba bis jabar ji mu mujjee takk ñoom ñaar ñu am problème sa waay jàpp ko daal daa di koy dóor xale bi dem këram dellu si ànd ak ñaari grand frère am ñu fekk waa ji ci biir daa di koy génn ci mbedd mi wullee wullee wulli ba muy bëgg a dee waaw góore waay te li ci gën a doy waar nag mooy waa koñ bi dañoo mel ni ku kontaan ci li yi def kenn attewul ma ne dafa lakkle kuy toroxal jigéen daal bës dañ ci am bës ma ne jigéen yooyoo na leneen lu dul dóor waay moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Pikine Henry na dayoo ñaari mandikat yu fanaane woon naa ni ñoo fa jàppante ba benn bi jël lañ seet dal di trancé bi op nee ñu nag yëf yi nii la demee ñaari mandikat yooyu dañoo jàppante FC la daa di blessé ñu ko naan alias Cuuc gaañ ko ci nopp bi pour venger wu nag ci la CJ alias Cuuc dal seet trancé baatu nafsi la laa ilaha noonu deret di tàmbalee wal ci lañu wooyee sapeur pompier ñu ñëw jël si ko yóbbu hôpital fan ñu interné ko ci service d'urgence laa ilaha illallah police bu pikin nag mujj na teg loxo seejeey ñu naan ko alias cuuc nañu bi ko jàppee nag fekk nañ ci moom cinq kornetu yamba ma ne mooy li ma waxoon rek ku ci bàyyiwul muqi yamba gundux sàngara ak naani pion ma ne nii moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca géejawaay ca marché bu bees romb na doy waar laa wax ab commerçant bu góor at yi toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñeent moo fa jëlaa si daa di koy xëpp ex copinam bu ko wor ci kanam gi ak ci yaram bi yëpp nga ma ma ba kanamu ndaw si ak yaram bi yëpp daa lakk waay ki yëpp bon commerçant boobu def ñaawteef bi nag mu ngi wuyoo ci turu moor sa ndaw si daf ko ba bàyyi fekk ñoom ñaar dund nañ saway def ci gone gi lu bari investir ci moom ñoom ñaar ñu dem sax ba am projet wu mariage ay waay ay nag bi ko ndaw si quitté mënatu la digérer séparation bi ci la dogale ndaw si daa di koy xëpp asib eskay ba fi mu ne ndaw si ñu ngi ko internet ci hôpital sawaay nag yoon mujj na ko teg loxo waay xam nga ne du rëcc waay ma ne yàgg naa ko wax laa wax mbëggeel ku ko xamul rek moo koy fowe mbaa di ko commercé loo xam ne li mu capable defloo nit moo romb jéggi dayoo lu lay taqaleeg sa sago di la misère loo di la absenté loo tere lekk tere laa naan di jooy jooyloo ponkolu mam yàllam jëm ma ne billaay ku koy fowe mbaa nga koy commercé da nga koo xamul moo tax ma ne jigéen ñi góor daal boo ko bëggul bàyyi ko mu dem te bàyyi poosam waaye ànd ak góor bëggoo ko bawoo poosam ma ne mën naa ni mel laa waa baax waaye tamit est-ce que la jar na yenn yi looloo jara laaj nag loo xam ne da nga ciy jaaree yàq dund nit yàq sa dund waay waay waaye waay dara jaru ko nag moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax réew mi na xale yi jëloon nañ fi salañ-salañ di ko naan ba naan ngalañ léegi nag moom bi ñu jël mooy beneen xeetu gundux gu ñu naan bul faale sangara soosu daal mu ngi bëgg a tas réew mi te ñi koy gën a utiliser nag mooy xale yu ndaw yi moo tax ma ne xale yi war nañ leen xoolaat bu baax parents yi dee leen xool seen ay njaboot réew mi léegi lu ne ngi fi ci sàmmul sa njaboot ñàkk mu doonoon seen xibaaru buzz euh, dig daje sam samedi ci yeneen xibaaru buzz